boo déggee par exemple euh, tubaab yi ak ñoom seen américain wala français dëkk bu njëkk am trouble mu di Tunisie mu di Égypte du ñuy njëkk ànd ak dégagiste yi populiste yi ba dëkk ba nërmeelu ñoom ñu indi seen mbër teg hmm. Tunisie bu mu njëkkee am émeute mooy bu mu njëkkee am genre ñoom Sonko yi populisme et consort démagogie nit ñi fàq topp américain yi duñu wax non il le régime de de truc Ben Ali il faut nga bàyyi démocratie jàppale population yi bu dëkk ba tas bu dëkk bi tasee nag ñu luxus seen nit teg américains yi nii ñuy wax rek xam ni am nañu déjà seen champion fan nga gis américain di ànd ak souverainiste fan nga gis américain di ànd ak ka nga xam ne dañu lay giñ islamiste ànd na ñooñu c'est que Sénégal ci boppam état moo war tas xam nga américain yi wax depuis un mois il faut que élection yi am le vingt cinq ñoo la gën a xam ne dix jours ci des le vingt cinq mënutul nekk mais il faut que ñu foog essence sotti ci fitna bi léegi boo demee léegi ba ne borom cak-cak yi dama ciy waxtaan ak kenn mu ma non américains yi neen il faut que ñu woteeg mais ko américains yi bëgg nañu cak boobu dem lakki bu dëkk bi demee ba lakk ñoom kii léegi nag problème bi noonu la mais américains yi seen bopp ak français yi mais lan lu mere mag Sall mais du ko mere ndax Macky Sall ci boppam bu ñu jógee indépendance bi léegi je vais dire un paradoxe ba nga xam ne moo am ci confusion ak démagogie bu am ci Sénégal amul man à mon fekk naa Senghor fekk naa Abdou Diouf fekk naa euh, Ablaye Wade xam nga man euh, ba ma euh, jamono Abdou Diouf ak Ablaye Wade xam lan moo amoon Sénégal ministère bu nekk day am conseil technique France ministre bi di def dara te laajul conseil technique France bi foofu la néocolonialisme amoon. Macky Sall ci boppam douze ans yii amul benn président ba nga xam ne libéré na diminué na le monopole néocolonial français ku dul Macky Sall. mais on a vu euh, président Abdoulaye Wade. d'accord li nga xam ne moo nekk base française bàyyi ma wax juree laa la wax de. wax juree laa déet da nga may bàyyi foofu Macky Sall moo leen ko delloo. bàyyi wax juree laa wax ndax loolu day day day déconstruire le faux discours. et ni ma lu tax wax loolu banque sa baaraam pétrole beeg gaz bi boo laajee léegi populiste yëpp nga la Total la ko yore. Total yorewul pétrole amul gaz British Petroleum moo yore gazu Ndar anglais pétrole Sangomar américain Ila Touba chinois autoroute Fatick Dakar frontière Gambie chinois Farafenni chinois pont Foundiougne chinois pont Rosso chinois. gerte gerte naa yow ki nationalisme économique boobu gerte ci boppam nga xam ne mooy sa première production chinois moo koy jënd sa data center ba nga xam ne yow journaliste nga mooy données yu gën yi sensible sa dëkk chinois moo ko tabax jam ñaajo ba nga xam ne ville nouvelle de turc moo ko tabax aéroport international turc moo ko tabax France ci boppam dafa nekk en faillite pauvre nekk en déclin bu mënatul néocoloniser néocoloniser nit amatul sax doolem mais populistes yi ñoo ko soxla ñoo soxla woo kaw France boobu beneen bi depuis 2020 toutes les devises du CFA qui était contrôlé par le Trésor français sont à la BCEAO ici au Sénégal et le conseil d'administration du CFA benn français nekkatu ci léegi mais yooyu kenn du ko wax on a besoin de l'épouvantail français di ko def di population yi France amatu fi dara mënatu léegi nag Macky Sall ci boppam dafa leen liquider kooku premier élément bi beneen bi nag euh, Macky Sall a eu des relations ex a été très engagé dans la lutte pour le peuple palestinien Blinken est un juif américain le gouvernement Biden est un gouvernement pro-gay, LGBT. C'est le gouvernement qui milite pour les LGBT. Donc, nous, beaucoup. France, qui l'actuel premier ministre, dafa nekk en pacte ak l'ancien ministre des affaires étrangères ñooñu ñooy jàppale euh, les nationalistes sénégalais et puis fan la depuis ku jàng fan nga ma gis américain boo jàppalee ku souverainiste comme Sonko jàppale wu ko. dafay tas réew mi Sonko lu lu gën bañ lay def souverainiste ànd ak ay islamiste abi sikkib ànd ak jomay américain bëgg loolu kon lan la américain bëgg mi tas bu tasee nag mu dàq ñoom Sonko indi keneen ndax ba nga sa baram looloo am ennahda ennahda ca Tunisie looloo am fis loolu lu def Sisi ci Égypte looloo am Soudan amul benn ci benn réew ba nga xam ne impérialisme bi aw occidentaux yi bàyyi nuru dégagiste ak populiste gagné man de ki sama xam-xam gisaguma ci quinze dernières années yii lu mel ne Sonko jël nguur ci Afrique. Mhm. tubaab bi bàyyi